alhamdulilahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa sallallahu ala say ala sayyidina muhammadin sayyidil urbi wal ajami muhammadin sallallahu alayhi wa bokki jullit yi ñu ngi dellusiwaat ak yéen ci suñu beneen jataay ñu leen di defal ci seen émission Shukran ñu nekk ci fukki fan yi nga xam ne mooy yu digg bi ci ñaan yàlla wépp yiw yàlla nañu ko màng bëtu njëgal bi ci yàlla di xool jaam ñi yàlla nañ ca bokk di ñaan yàlla teewe ko at yu bari ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mbokk yi koor nag mi ngi noonu ak ay bagaasam di gan goo xam ne yàllaa ñu ko délégué di gan goo xam ne fóot ay yére ko tax a jóg di gan goo xam ne fóot ay bàkkaar gan goo xam ne day fóot ay jikko gan goo xam ne day laabal bakkan ba orienté waat ko tegaat ko ci siraatal mustaqim euh, gan goo xam ne dafa làmb fukki yëf ak ñaar euh, bi ci jiitu mooy teraanga ju yàlla digge yowmal xiyaam gan gi bokk na ci li koy jural nit ki te dañuy wax ne buur bu teddee ni yàlla te man boppam bu diggee teraanga ci ab ku lottee ni jaamam rus na ko neenal te bokk na ci gan ñi nga xam ne dañuy bégalee nit ki yowmal xiyaam aljanna beneen bi mooy gan la goo xam ne dana laabal bakkanu doomu aadama bi bi ci desit mooy dana dëgëral yaramam may ko wér ndax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon suumu tasixu woor leen ndax ngeen wér euh, dem nañ sax ba science découvrir que ne nit ki su bëggee ay organam normalaat sax na xiifal boppam ñetti fan wàññi lekk wàññi naan su ko defee ñetti fan ay organam dina ko retrouver waat normal te loolu science mi ngi ko jëlee ci koor euh, beneen bi ci desit mooy danañuy jural muraqabatallahi subhanahu wa taala yusmiru mahabbatallah dana jural nit ki meññentam bëgg yàlla euh, mbokk yi yàlla dañuy wax ne ku ko bëgg texe mais kum bëgg am nga soxla yàlla dañuy wax ne kum bëgg lu mu metti la ci nattu dina la ko teg te soo weddee mu duma la waaye yàlla it dañuy wax ni képp ku ko bëgg texe nga ndax ku bëgg yonent bi sax am nga sens man ngaa raw ndax ma mahabbatuhu yum noonu bëgg yonent bi rek tab la bëgg yonent bi rek richesse la beneen bi ci des mooy koor dana dana dana dàggi bakkanu nit ci topp yàlla dana ko lakkalit bépp bàkkaar boo xam ne bon bon la woon boo xam ne daf ko daan fàggu ci lu dul bëccëgu weeru koor nga gis ne bi nga woore wàññi nga lekk wàññi nga naan soo demee ci sa état de santé dangay gis ne sa cholestérol dana wàññeeku bu dee sa suukar dana wàññeeku bu dee tension yit ak leneen ak leneen lu mu ci mën a doon dana wàññeeku parce que lekk gu bari bokk na ci lii joxe feebar yu bari beneen bi nga gis ne tegtal la ci yéwéne diggante jaam bi pour mu tege ci yoon wu jub bi parce que ku woor sàmmanteeg dëgg-dëggi koor doo faat julli ku woor te doo jëw ku woor te sàmmanteeg dëgg-dëggi koor doo def na ko sudul noona moo tax yonent bi waxoon ne man qaama ramadaana saaban waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zanbihi ku taxawe weeru koor def farata yi ba mat ni la ko yàlla sante def ponk yi ba mat ni la ko yàlla sante def yu rafet yiñ la ci sant ba mat ni la ko yàlla sante yàlla jéggal la sa bàkkaar yi nga defoon bi ngay dugg ci koor gi te jaroon na ko nag beneen bi mooy simaamu amnin minal wuquu'i fil muharrimaat buum la gu dëgër goo xam ne dalay takk koor buum la goo xam ne dalay takk ba doo jeng jëm ci lu xaraam beneen bi mooy yuurisu xasiyatullahi dana meññ ragal yàlla ragal yàlla mi ngi tàmbalee ci tëju ci néeg bi yow képp gis loo lekk gis loo naan nga tere ko sa bopp ne dafa am buur bu ma ko aaye te mi ngi may gis mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa daan wax rek fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak yow boo gisul yàlla it jàppal ne yàlla ngi lay gis taragal yàlla foofu la tàmbalee beneen bi mooy yusmiru muraagabatallahi azza wa jalla dana jural jaam bi mu fuuglu yàlla fu mu toll fuuglu mooy xam ne yàlla kat ku la occupé la occupation yàlla ci doom aadama nag weesuwul euh, asawmu lii wa ana ajzi sama jaam bi xiif na mar na oor na defu ko ngir jëmmi kenn sama jëmma tax mu def ko danaa ko fayal sama bopp fuug lu yàlla foofu la tàmbalee beneen bi mooy dana dajjati nit ki ci mboolem taq-taq yi nga xam ne dana ko jural tilimu bakkan koor dana ko def ci doomu aadama beneen bi mooy koor daal ngànnaay la goo xam ne dañ koy xeexee ak seytaane parce que premier ngànnaay bi mooy yàlla yeewal na la ko keroog bi ñu ne weer wi feeñ na yeneen arme yi ci des nag mooy topp yàlla bari looy naafila bari looy saraxe bari looy jàngale dooy jàng alquran loolu boo ko dee def dafa mel ni ki yaa ngi xeex ak seytaane moo tax koor euh, yonent bi daana wax ne asiyaamu junnatun min annaari ka junnati ahadikum min alxital yonent bi sallallahu alayhi daana wax ne koor légitime défense la comme ni kenn ku nekk di jëlee légitime defence ci buy xeex mooy gilet parbal bi ngay sol wala pakk boo xam ne da nga ko yor ci booy xeex bu ñu la jamee nga fentee ko wala nga kalee ko liñ lay jam ba du mën a agsi ci yow nee na koor noonu la mel ci doomu aadama bi mbokk yi yal na yàlla nangu suñ koor te nangu seen koor yal na yàlla nangu sarax yi nangu nawaafil yi euh, te fulal ñu tuyaaba yi nga xam ne moom lañ ciy jéemantu yàlla defal ñu koor gu nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa di leen jox daje ci beneen jataay wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu